wallaan bi kum wure wa dem na këng waxi mag dem na ndañ taali lu waay doon jaay suba ci dimanche ji mu lamb ndax la soleil yéene kaay moo ñu xamal ne suba ci dimanche ji ci la ñuy amal wote député yi ñi doon dagaan baatu askan wi coalition yi ak candidat yi seen campagne bi jeex na ni ki démb ci guddi kon fi mu toll nii ñi ci des mooy askan wi war a wote tànn ña leen doy ngir ñu toogal leen ci assemblée nationale ah, yaw seetal laas yéene nee na suba mooy maag maay diw ak maay lii ak maa fi gën maa fi mën wax yooyu yëpp jeex na fi mu toll nii danañ xam ki mën suba mu leer de info yéen a kaay na ko waxtu suba yi mooy waxtu dëgg gi enquête yéen a kaay ne askan wi kay fi mu ni kenn nokkeetul si du quotidien ne askan woowu yéen a ci des fa ngeen di ŋàbb seen i la le soleil yéen a kaay feelu ko na ko avoo carte jël leen dem wote ji suba ñi war a wote nag yéen a kaay bi ne mi ngi toll ci juróom benn million doomu aadama yu toftal juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari junne yu toftal juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent maanaam 6 millions 720 227 759 électeurs juróom-ñetti coalition nag ñooy xëccoo kan mooy ëppale député si du quotidien ne diiwaan yi nga xam ne nag moom lañ gën a bàyyi xel ak diiwaan yi nga xam ne ñëpp a ngi naan waaye kan moo ko nar a ndax am solo bu am solo xam nga yan diiwaan la jàppal benn ndakaaru njaay Thiès Mbàkke Ziguinchor Kaolack Pikine Géejawaay Mbuur Kër Massar Tiwaawoon ak Rufisque ndax dëkk yooyu ma leen limal xëccoo ba moo tar te ña fay wotee fa ñoo bëri ndakaaru résultat yi génnee képp kuñ fi mbuqi ngay fori new waaye diiwaan yi nga xam ne ñëpp ngi xaar kan moo fay mbuqi kan mooy gàddu ndam la mooy diiwaanu ndakaaru pikin géejawaay Thiès Touba Mbàkke Kaolack ndangaan Tëngéej Ziguinchor gaa ngi leen di surveiller les ko a kaay na ko waaye wote député yii suñu waxantee dëgg kenn xamul kan mooy gañe daraa ci leeru ku nekk mën ngaa gañe ndax yëf fa seere yow seetal bu dee bennoo bokk yaakaar moom fa bëgg am majorité ëppale assemblée ay député waaye yeewi askan wi ak wàllu ñoom fa ñoo bëgg a ëppale ay député nguur gi su ko defee cohabitation am ci assemblée nationale waa aar Sénégal Sénégal ñoom mën nañoo jaxase carte gi nag bokk gis-gis ak les serviteurs MPR coalition ponkal yi fañ leen a wër ndomba de info yi ne moom département bu nekk mu wax ka yaakaar ne moo fay gañe l'observateur moom it mel ni ko def li ni mel ndax ma ngay wax détail ak fi gaañu nar a jaar ba am ndam waaye wote député yii fa am ay enjeu yu bari ndax avenir réew mi fa cee dépendre de yéen a kaay bi dikk naak ñun ci carte électorale bi waaye am na ay dëkk yoo xam ne ay sàkket mbaar gattax ca la ñuy voté ndax seen école ya ndox ma fa fees doll fa inondé yow seetal ñaar fukki junne ak ñaar ci ngir ñu contrôler saytu xool wote koy doxalee bureau de vote xam ngeen ñaata la fukki junne ak juróom yu toftal téeméer ak juróom ñeen mille cent quatre-vingt-seize am na ñeenti nit nag askan wiy wote suba seen avenir ci seen loxo la nekk muy Mimi su amee ndam am na lu bëri lu ko mën a andil waaye suñ ko mbuqee su amul ndam dana garaaw lool ci moom naka noon Ousmane Sonko su amee ndam dana am fu bëri fu mu ko mën a yóbbu ñoom waa yeew yi waaye suñ leen mbuqee fa a fori new naka noonu Khalifa Sall ak Karim Wade ñii ñëpp daal seen ëllëg mi ngi ci loxo askan wi nar a wote suba ñoom nag candidat coalition yi la leen waroon def nañ ko sa seen cër jeex na campagne di dig askan wi danaa def lii danaa yokk lii yéen kaay bi ne waaye tamit am na ay ministre yoo xam ne ay suñu leen mbuqee ay suñu pertee fa ñuy fari new de du baax si ñoom Macky fa leen di kajj dàq football ca biti bokk na ca Abdoulaye Daouda Diallo Mansour Faye Alindooy ak ñeneen libération ne juróom-ñetti liste nag ñooy xëccoo ci wote yu ama am solo muy wote député yi du caaxaan de ko yéen a kaay naka moo taxit Ablaye Wade jógee na France ñëw na démb Dakar ngir wote si suba ci njeextalu campagne bi nag moom Ablaye Wade ak soxna njiitu réew Marème Faye Sall ñoo nekkoon star yi bés a kaay juróom benn fukkaat ak ñaar bi mu fi nekkee ba léegi bët bu set rek député yi di ko gën a bëgg ku nekk di fa bëgg a dem député yi fa war dem nag téeméer la ñu ak juróom benn fukkaat juróom lu ëpp juróom benn million doomu aadama war a wote lii yéen a kaay ne waaye ci wote yii nii tey ci samedi ji bu minuit jotee jàpp ba min minuit fa ñuy tere ku tukki oto jógee benn diiwaan dem ci beneen diiwaan info yéen a kaay na ko waa CEDEAO yi ñoom ñeen fukki doomu aadama la ñu yónnee Sénégal ngir ñu xool wote yi dana am sàcc am sàcc dana am problème ak ndax dana jaar yooyu fa ñuy superviser daal ci gàttal enquête yéen a kaay ku naan waa CEDEAO yi na seen xel Sénégal ndax ñu ñuy dénk wote yi nee neen mbooleem jumtuwaay yi ñu war a wotee yóbbu nañ ko ci seen place ya bulletin de yi juróom-ñetti millions lañ ci defar diwaanu Touba moom ay bâche moom lañ defar ngir ñu mën caa wotee wal fa jër yéene ne faa leen di wax lan mooy leeral wote yi maanaam ñay gañee fan la jaar yéene bi mel ni ko naan njort nag ne wote député yi sénégalais yu bëri danañ génn dem vote ji ndax fa ñoo xam solo bi wote yi fonctionnaire yi mooy fi mu toll ni Macky Sall njiiti réew mi yokk na mbooleem salaire administration bi fonctionnaire yëpp les si ko yéene xamal ne Pape Mamadou Seck appartement ba maanaam fa mu dëkkoon néeg ba fañ koo dajji sàcc fa ab télé mu nekk mbir yu garaaw ubbi nañ ci ab enquête laa si di ñu xamal ne Idrissa Goudiaby bañ fetaloon ca Ziguinchor mu dee ndaw la jébbal nañ ko boromam ni ki démb libération moom di ñu xamal ne Sonatel am na problème na yaw seetal liggéeykat ya ci alxamis ji fa takk ay morso yu xonq di ñaxtu ñaawlu doxalinu seen kilifa ya te nee nañ nag dàquñ sax dem di ñu xamal ne benn waay fa jàpp borom tàngana jaaykatu may ga yi fu ko dóor ba muy bëgg a dee lépp ndax mburu mu ko jaay defu ci mayonnaise waa ji nu ngeen yaakaar na la sant l'observateur moom xëy amal jàngat ci góor ñi nga xam ne seen jabar yi fañ leen di ñaan baat ñu bañ leen a fase lépp ngir fayantoo ak ñoom wala ak fiiraange ak soxor duma la jëfandikoo te duma la bàyyi nga dem am beneen jëkkër téye fa soxna sa di ko tardel te loolu fa ñaaw jigéen buy sëy ak yow dem ba na bëggatuma la ñaan la baat góor gu am ful ak fayda koy may baat mu seeti keneen nga seeti keneen am na loo xam ne gàcce la fa rusul sax góor te fa bëri góor ñu koy def nag te ñaaw la ah. <laughs> néegu tooxi doona ya bunt ba ubbeeku na benn waay bu ñuy wax lamin jéeju fa jàpp baayam bi ko jur baayam carrément rocci paaka bojj ko ko di ko ko jam ba baay ja faatu ñàkk ba kanam allah yëf yaa nga amee woon ca diiwaanu Ziguinchor bañ ko tegee loxo fa ñoo fekk ne ndeke doom ji fa màndi ba na tatt di bajj bajji ci la ëlbati ko rey baayam libération moo ñu ko xamal bi mu reyee baay ji nag fa ëlbati ko bëggoon a rey doomu bàjjanam mu daw rëcc ca kanam tribunal ba doomu bàjjanam bi mu ngay nettali nee na lamin fa tëral baayam na ko ma rey la bàyyi ja noppi mu rey ko tribunal ba nag daan nañ ko giir dundam goo xam ne fay tëdd kaso waa ma ne wallaay atteb yàlla bi moo gënoon a mandu jaru tëj kaso fa ngeen di jël nit koo xam ne mandiwu dara dalu ko ñu tër ko rendi ko ba mu dee ñetti yoon rey sa baay mës naa koo dégg xam nga ne yow fayoo naar bi xoromam nit ñi di teral seen baay yi ngeen topp dorog bi yàmbaa bi mu leen di dof loo ñii di rendi seen doom yi ñii di rendi seen baay xam nga ne loolu baaxut ba pare fa ñaaw